mais euh, bah, il est dans son droit parce que nit ki amoon lu dul sa honneur ak sa dignité ak sa crédibilité maintenant euh, xawma euh, responsabilité parce que pour man ab Fall gisuma ko fenn ci ci circuit boobu ba mu mun ci dugg maintenant comme aadama Gaye moom moo bind loolu xamale ko euh, bu ko waa ji plainte comme moom liggéeyam la doon def bu ko waa ji plainte bu demee ci yoon mu indi les preuves sur la table bu fekkee amul preuve sur la table parce que li nongoloo doon wax naan teggi tuuma du ragal. Ah. je crois que c' est important euh, ñu dem ci yoon pour ñu xam parce que moi j'ai entendu bi muy wax ak journaliste yi mu ne leen da ngeen am responsabilité ci seen liggéey bu ngeen gisee ku bokk ci man ku def lu defuwut xamal leen ñu ko su ngeen ñu ko xamalee ñu gëstu ba gis lu leer yoon def liggéeyam waaye tamit bu ngeen amee responsabilité wax loo xamante ni safaanoo na ngeen ko assumer. mais je crois que euh, loolu jarul ñu ci ñu ci ñu ciy sori le plus important est à retenir Aliou comme tu as de de des des marchés euh, de marché public du marché yàpp sa jëkkër aussi waaw Ousmane boo joxee dépense sa soxna marché ba ko neex na jëndi parce que sa la mais principe bu marché public surtout ci wàllu transparence ak bonne gouvernance le Sénégal dafa am code des marchés publics mais aussi dañu am aussi code de investissements Euh, ce qui fait que dafa am yoo xam ne ay offre spontanée la mooy maanaam benn entreprise am na ci lu mu spécialisé wu loo xaarul woon mu ñëw ne la mën naa ko def su boobaa nga ubbil ko say bunt parce que tey on sait que sur beaucoup de marché moi j'ai l'habitude de de dire euh, fii euh, peut-être boo génnee Dakar bëri na village yu bëri yoo xam ni amuñu wàllu courant et Azer commencé wul tey donc depuis temps Abdoulaye Wade makk bi mu ñëwee ak kii bi mu ñëwee ma leen di rappeler Abdoul Mbaye en 2021 dafa génnoon mu wax ci poteau lampe yooyu mooy poteau lampe béton yi. Abdoul Mbaye avait évoqué ça. l'article est là sur Seneweb ci boobu jamono mu ne premier ministre Boun Abdallah Dionne moo ko validé woon il a dit qu'il surfacturation sur les poteaux. yi nga xam ne moom la ñuy def. rappelez Sénégalais kan moo yoroon su marché boobu. kan moo ko yoroon. waaw ñu ne poto lampe béton dañ ko surfacturé woon. voilà dañ ko surfacturé woon ça c'était en deux mille vingt et un ma ñëwaat comparé waat sur les actualités j'ai vu que le nouveau directeur il a évoqué aussi la même chose cest à poto boo xam ni war na jar. deux cent mille francs c'est-à-dire mooy boo demee ci dëkk àll yi béton yooyu mooy poto yi jàllale fii li mag yi ñu surfacturé ko de un million mu indi euh, globalement une surfacturation de quinze milliards donc ce qui moom bi mu ñëwee gis na ay anomalies moo tax mu arrêté ko beneen bi ci sama xalaat bu gàtt ah euh, Sénégal lu ñu bindoo dañu bëgg entreprise nationaux nationale yi ah, pas Moussa mm-hmm. ñu suqali ko mm-hmm. moo tax même beneen entreprise bu jógee bitim réew dañu koy wax balaa ñu koy signer mu mën a lëkkaloo ak une entreprise sénégalaise. tout léegi nag ci kaw lëkkaloo ba ak entreprise sénégalaise bu fekkoon amul entreprise bu spécialisée au sud boobu ñu fexe am entreprise boo xam ne mën na lëkkaloo moom pour mu def liggéey donc ci li ma comprendre bu Espagne bi entreprise bu mag bi ak bu Sénégal bi daf ko mandaté pour benn bu jëm ci wàllu liggéey maintenant c'est les marchés aussi c'est des contrats. te mënoo ñëw nga dakkal contrat ci ci noonu pour nga dakkal contrat dafa am ay conditions yi tax ñu koy ñu koy ñu koy dakkal est-ce que ki gañe marché bi fan la toll ci exécution bi est-ce que respecté na li nga xamante ni moom la warlu woon sur les exécutions sur les délais sur la qualité loolu yëpp lu ñu lu ñu lu ñu war a saytu la donc pour man comme tu yi dit euh, dañu am direction centrale des marchés publics mm-hmm. tey ñu dem ak loi bi ñu def ARCOP pour xool lépp loo xam ni moom moo jëm ci wàllu marché public donc ñooñu bu ñu àddoo jëmale ci ASER ça veut dire que tout simplement jàpp nañ ni démarche bi nga xam ni ASER def na ko mm. respecté wul li nga xam ni mooy les règles donc on devra se conformer d'abord sur les règles maintenant au moment ñun ñuy nekk ci wàllu marché ak wàllu texte mais dafa am yoo xam ne tamit foo faut ñu lijjanti ko sëñ bi mm-hmm. lu war a jër deux cent mille mm-hmm. ñu facturer ko un million kañ la am courant surfacturation. dëkk ñoom Jomaay. dem naa fa daaw. njagañaaw njagañaaw à côté de njagañaaw am na taset séeréer taset tukulóor ils sont pas électrifiés cest à pour nga charger sa téléphone. da ngay yéeg ci saret dem ba njagañaaw pour nga brancher nga am courant. les sénégalais qui sont à l'intérieur ba tey am na ñoo xam ne lamp pétrole la ñu yore lu même problème c'est ce qu'on avait avec Akile. Mm. le problème Akile. on en avait parlé gëj naa ko dégg moom sax xamatu surtout lu mu nekk dégg naa fan doon politique. parce que acculé le mot ça signifie en pulaar intelligence. parce que dañu waxoon dañu wut ay compteur intelligent parce que tout simplement senelek manque ak gagner bi mu am ci courant bi bi ñuy fuité ak branchement clandestin yi nan la ñu mën a def ba mun a am loolu. Mm-hmm. ñu indi matériel bi. matériel bi c'est pas fonctionnel parce que tout simplement y avait un conflit d'intérêt ku nekk am ci intérêt donc am na yoo xamante ni li ñu doon càmbar nii nañu càmbar lépp lépp loo xam ni contrat la boo xam ni mu ngi fi te nekkul en faveur des sénégalais bu jaree ñu dakkal contrat bi nañ ko dakkal parce que ne peut pas mettre des milliards injecté ko pour soulager les populations. surtout que la après on se retrouve sur des irrégularités dafa baaxul sax. ci gis nga li koo génnoon di ko wax laa sur nos finances publiques sur nos finances publiques mais aujourd'hui pour l'entretien même d'un réseau électrique même sur le transfert technologique war nañu xool les contrats man pour man euh, waa ji xaw ma ko ah. moi je suis très fier c'est un jeune qu'on a responsabilisé bi muy dem première négociation j'ai suivi fi gars yi tolloon ci nombre de villages électrifiés yokkaat nañ ko mais pour man il a besoin d'être mieux outillé mais mieux accompagné. parce que même bu fekkee am nga loo bëgg dafa am ay règles yoo xam ne moom moo fi nekk. Mm. et beneen entreprise sénégalaise bi am na sañ-sañ. parce que dans le cadre des conventions de partenariat parce que c'est des partenariats public privé mm. am na ay clauses yoo xam ne moom la seqaloon ak entreprise bi bu fekkee ne entreprise bi daf ko njoof. mën a encaisser business bi dawal ko te moom bokk ci am na sañ-sañ mu dem mu kalaame bu demee mu kalaame si li nga xamante ni ñoom ñoo war a arbitrer ñooñu daa def l' arbitrage qu'il faut mais en tout cas y' a beaucoup de nébuleuses sur les marchés et am na am na koo xamante ni marché Sénégal yi bi bëri moo ko doon gañe mu gañe yëpp mosu koo tabax. ah bon. man kay maa la wax li da ngay jox xam nga man fekkee ma déglu ma sa li El wax mais dama ne la. am na ci nguuru Macky la ñoo xamante ni dañ doon gañe ay marché tabaxuñ dara. am na ñoo ci xam. keneen ki stade bi màbb démb jóg stade yi ñu fi doon tabax yëpp kooku tam keneen la. mooy mooy mooy gañe marché moom oh. comme par extraordinaire mooy gañe marché xam nga man bëgguma sori xam nga man liggéey naa ci marché neuf ans mais dama lay xamal ni que mun nga am les meilleurs textes. yaa ci du monde. mais gars yi am nañ ay possibilités yu ñuy contourner les marchés tu peux avoir les meilleurs textes mais xam nga tey quand on parle de bon gouvernance quand on parle de transparence mais surtout ça doit se passer sur l'application stricte de textes am na ñoo xam ne sa ay sous-marin lañ xam la mooy sous-marin man mën naa la jox benn cas je donne juste un exemple par expérience euh, dañu euh, am PACASEN on doit construire une école école bi tey boo demee di nga ko fekk mu nekk école à étage boobu man maa yoroon tout marché public Pa Moussa dafa am lu ñuy wax plan de passation des marché donc sur l'année on va l'avoir on sait exactement pour l'école lii lañ ci def ma jot ñetti offre bi ma jotee ñetti offre yi Pa Moussa xam nga texte bi danaan ma moyen dix ans ngay jox mais le moyen dix ans yaa ma dégg Aliou pour l'école pour école école six classes mu defal ma trente huit millions ñeneen ñaar ñi kee defal ma 48. kee defal ma 49 ñaar ñee ñoo jege norme bi. mais bu fekkee damaa topp teg si je vais donner au moins 10 ans j'ai dit non. lii nanguwul xel parce que dafa am ñoo xam ne dañuy ñëw encaisser marché bi ba pare buñ ko encaisser amuñu peel mënuñu tabax ñu jëlaat marché bi yaa ngi dégg dem sous-traité ko c'est pourquoi léegi nag quand tu dois gagner un li ngay njëkk a vérifier mooy capacité technique capacité financière xool sur le plan de la fiscalité mais boo ko laajee kayit mu motal kayit yëpp nooy def donc première chose que j'ai fait musuma am cas bu mel noonu mais man dans ma conscience je sais que kii c'est un requin je prends mon téléphone j'appelle mon professeur bi ma yoroon IRMAP bi nekk ARMP ma laaj ko la démarche mu ne ma c'est très simple da nga koy bind une correspondance pour lui demander les détails de son offre les détails donc day bind détail wax ne ni laa koy tabaxee matériaux bi après ma jël loolu j'ai donné au responsable de l'urbanisme qui est un ingénieur mu compareel ma son offre sur la base de ça j'ai rejeté son offre ma jël kële le moins an mais xam naa ni su ma ko defee automatiquement. mais c'est pourquoi on parle voilà léegi mieux léegi nag fii dans lay textes dafa dans lay textes dans les textes dama lay wax de fii li ñuy privilégié. moins dix ans lay doon toujours. mais mais il faut nga am argument. te ARCOP daa soppeeku. waaw léegi man man dama lay wax. waa xaar waa defal naa man dama lay une expérience que j'ai vécu li ma lay wax ni école bi ubbi na xale yaa ngi jàngi su ma rombee je suis mais xam naa ni bi loolu amee démarche bi ñu waroon def parce que su ma ko yëllëxee rek te aw ma argument duma ko mën a rejeter te bi ñu ko rejeter dafa def li ñuy wax recours gracieux c'est-à-dire day ñëw ci autorité contractante bi pour def en recours. mais su paree foofu dafa war a dem au niveau de. Hmm. de la l'ARMP au niveau des SMP mais eggu fa parce que xam na ni moom li mu nekkoon du dëgg. donc moo tax sur les marchés même ki ciy nekk war nga prudent parce que parfois nit jox la sax yenn prix mu leer na ni kii mënu ko réaliser mais sur le papier mën na la indi naxee mbaay donc moi pour la transparence et la bon gouvernance bu buñ ci yem ASER sur la gestion de ASER de dix ans nañu vérifier lépp. kan kan moo ci gane marché ñu mën a xam exactement lan moo ci nekk on peut man duma ñëw rek fekk ay contrat ay tegu sama kaw xaw ma contrat lu mu doon te du ko càmbar moi je soutiens le gosse ah puis voilà waaw moo tax mu war a leer na léegi nag comme kee moom moo yëkkati responsable am précipitation quoi il ah parce que tamit sénégalais yi dañoo dugal seen xaalis day milliards dañ ci teg. nga ñëw rek ne leen arrêté leen comme ça. ñu war mais xam nga booy favoriser da ngay favoriser sénégalais. ça ah, mais ñu baax sénégalais yi lañ ñu. waaw mais xam nga da ngay favoriser sénégalais ça tout le monde le sait ñun ñëpp ay patriotes lañ suñu sañoon sénégalais ñooy doy rek lépp du dëgg. mais fii da ngay jël ab marché nga jox ko entreprise sénégalaise. du ko liggéey du liggéey. jox na la kaw stade yi stade stade Demba Diop bi stade Demba na fi ki gagne Demba mooy gagne stade yëpp comme par enchantement la même personne qui gagne tous les marchés cas du loolu de ma wax ma si cas bi man de manière générale ah, ah non man ci cas bi laa nekk nag d'accord bi moom c'est assez exceptionnel na leer rek d'accord na leer très euh, ñu ñëw ci euh, beneen ponk muy hmm. mbirum euh, Barthélémy Diaz ak euh, recours bi nga xamante ni coalition ànd suñu réew déposé nañ ko contre candidature. waaw coow yi bëri na également ci cas boobu ndax ñu ngi xaar pour xam est-ce que réellement buñ ko vidé ca conseil euh, constitutionnel lan lay joxe laata boobu ku mel ni euh, Thierno bokkum